Noël ndorteelu at bëre wala sax ay meeting ña fay ñëw di jëfandikoo ay pétard. dañuy ambiance yow tamit dund loo fekkee. yooyu les charges explosives yu ndaw di jur ay jéeye yu bari ni Medina yëmbal ca quartier Assegno daa di dund li ni mel. man ni wax ak yow man ni wax ak bi laa xoolal su nopp fii tellement su nopp fii on jour jour te nopp bi di naaj barke à courant la képp. xëy booyee du dëkk fee rinoof yoon si laa pétard nga yaay mu yàq bëtam billaa benn bët fii moo ko yàq barke yaa xuraan pétale yi ay xeex ay pétale ñuy génnee yu téenee yu mag bu la fay daal daal nañu fi ay accident waaye accident yi bariwul tuuti tuuti rek la ci loxo ci seen loxo lay doon dañ koy téye mu mu mu ñu fàtte ko fàtte ko sànni mbaa ñu yeex koo sànni dama koo gis nga taal pétale mu taal mu tàkk ab kër wóoru ngir bañ seeni doom daal di bokk ci yooyu la géeru pétaal yi nga xamante ni nag dafay gàllankoor wala sax di yóbbu bakkan yi la way jur daal di ci jël ay dogal. xale yi moom dafa dëgg yàlla teel na leen waxtaan ak ñoom daal ñu bañ a sori daal ci pétaal yi xanaa ndax réussite bi rek daal moom moo am ah, xumb xumb boobu waaye fii ci koñ moom bari taxu ko tax koo bari noonu moom pétaal yu ndaw yi rek lañuy lañ doon dóor. man sama waa kër moom dama a tëj wóor na yàlla yoon dama a tëj génnuñu taal ñuy pétaal ndax taal pétaal wóor jëfandikoo yooyu le yi nga xamante ni nag cher lool la daal di def mën naa yóbbu bakkan ngir fàggu ci li ni saa yu ndaje amee ñi nga xamante ne ñoom lañ jot a tàllal suñu lantinoor di ñaax rek ba njiit yi daal di bàyyi xel ci njaay gi itam ku ko daal di yore ñu daal lay daan